xam nga durant deux mille dix neuf ba deux mille vingt quatre le BND xel ak koom n'a adhéré a aucune coalition benn coalition dugguñu ci benn benn coalition. Mhm. parce que li ñu doon def ñun gëmuñu ko. Euh, yaa ngi wax may leen temps may leen temps mais parce que si nous ne sommes pas allés dans la coalition Diomaye 2024. comme beaucoup de personnes. comme beaucoup de personnes voilà pour ñu demee ba xam ne Diomaye mooy gagné c'est c'est ils sont ralliés en masse. nous ne l'avons pas fait. Mm-hmm. tey xëy na bu ñu demoon. Diomaye bu ñu au lieu de soutenir Idrissa Seck donc xamoon nañ poids mag affaire yi. Mm-hmm. bu fekkoon ne c'est uniquement pour participer à la gouvernance mais dañuy dem bokk Diomaye Diomaye comme mm-hmm. tout le monde l'a fait mais defuñu ko parce que gëmuñu woon ne li ñuy promettre sénégalais yi c'est réalisable c'est en fait moo tax bu ñuy wax booy wax xaar xaar mais lan la ñuy. mais vous pensez donc que le Sénégal est en danger maanaam les mën nañ ci am ay craintes non le Sénégal n'est pas en danger. j'ai dit j'ai dit bien avant que le projet est un toc. qu'ils mhm. ont vendu aux Sénégalais Sénégalais yi jënd nañ ko mais le projet euh, Mamadou tu es la tu le yoonu yokkute. Mhm. deux ans après s'est transformé en PSE. E. E, le soppi. bi ñu demee ba jël pouvoir bi trois ans après avec les problèmes Wade Idrissa Seck bi mu passé Macky Sall ñëw nekk premier ministre ce des plans qui ont dirigé le mmh. Sénégal on gagne des élections avec le slogan on gagne des élections avec un programme avec une proposition de programme on gouverne avec la réalité des faits et des chiffres moi j'étais sûr à 100 pour cent que le projet la n'est pas réalisable dans le dans le concret existentiel bi. mënul nekk donc li ñu def nii loolu moo mën a nekk. Mm-hmm. cest à léegi nag il faut qu'ils aient l'humilité et l'honnêteté d'enlever ce mot projet la ci li ñuy def nii mënuñu wax ne projet mu ngi nii 204 pages nga liir ko ma liir ko ñu xam lan moo nekk ci projet bi tey ñu ne dañuy def une commission qui va se charger de rédiger. Mm -hmm. euh, un autre projet. ba pare bu ko tuddee projet li ñuy def nii moom mooy réalité. Ah. donc le Sénégal n'est pas en danger. parce li ñu war a def. Ah, ah. par rapport ak jàngat bi nga am ci ñoom li nga leen gis seen parcours seen jaar parce que ñu bëri bëri amuñu parcours amuñu jaar jaar aussi faut le dire. Euh, est-ce que maa ngi naan sànq le Sénégal n'est pas en danger moo waxee loolu mooy ndax ils ont la capacité. voilà de changer les les choses. ils s'ils sont honnêtes et reconnaître que juum nañu. ba pare et ils l'ont fait <laughs> Mamadou Awa Balla. Mhm. qui est le directeur de cabinet du président de la République. qui est le secrétaire général qui est le directeur de cabinet du premier ministre. qui est qui est mhm. qui est qui est. bon que voilà a euh, actuellement il est difficile de parler dans ce pays. parce que y a l'euphorie. y a mhm, ceci y a cela booy wax dañ naan. exactement mais la vérité est que il n'y a pas rupture. il y aura des changements dans la gestion doxalin bi. Ablaye Wade président de la République c'est une le président Abdoulaye Wade la présidence de et la présidence de Abdou Diouf ou bien de Macky Sall est différente chacun vient avec sa personnalité mm-hmm. c'est tout ce qui va changer mais cette rupture là ou ce projet là c'est du toc mënul nekk